salaamaaleykum wa Sénégal donc ñoo ngi nuyu euh di wax nak ni tey jii dafa am lu xew moy couvre-feu bi nga xamni président mom la décrété euh, mu wara démarrer tay de vingt et à 6h du matin ma japp ni le président de la république su jëlee décision def couvre-feu moy niveau renseignement bi nga xamni mom le président am amul ben sénégalais bu ko am donc tay yakarna ni kenn du fal ben président mu laaj base askan ba pare retourné waat ni def leen di noot nit loo mën a dox say soxla ba vingt une heures nga mën a nekk sa biir kër feebar bi bari na ci dëkk bi ñi naan feebar bi amul seeni mbokk tëddul donc président bu jëlee décision ni dafay def couvre-feu boo xam ne dafa bett ñëpp parce que couvre-feu yi fi daan def yëpp ñu xam ne dañ ko daan waajal mais bii dafa bett ñëpp boo xoolee mesure bi ni mu demee ak ni ko président jëlee rek ça veut dire que ni xam nga le cas est critique donc nag nañu ñaanal président action yi nga xam ni moom la moom lay def ñu accompagner ko jàppale ko ci mais seytaane yi nekk si dëkk bi nga xam ne lu président def ñu taxaw naan ay daf ñuy noot ak kenn nootul sa askan président nootul kenn lu dimbali askan bi ci la nekk donc nag maa ngi profité ci occasion bi pour féliciter ko encourager ko jàppale ko ci li nga xam ni moom lay def pour jàppale askanu Sénégal ñëpp nekk ci jàmm feebar bi ñuy ñaan yàlla jële ko fi le plus rapidement possible salaam merci